halaan bikum weeru saawiya wi ñu nekk weeru xat xat weer wu compliqué la nar a nekk ci sénégalais yi ndax ci la ñuy xamal wote gox-goxaat yi ci la ñuy xamal football coupe d'Afrique ba ba tax tribune yéene kaay na sénégalais yi seen xel yi fa nar a jaxasoo ci weeru sanwiew yi ñu ne deetawaayi corona bi fay fararar yi mu ngi gën di yokk mu mel ni fa ñoo nar a jëm ci campagne boo xam ne wóorut ci wote yu am solo nag ñu ngi njortu sax ci weeru sanwiew yi ci la Macky Sall di fal njiitu jëwrin yi réew mi yéene kaay mel ni kuraan ko faala ci yokkal weeru sanwiew yi tamit boo moytuwul coupure courant yi fa a ci réew mi ak yeneen weer yi nekk suñ kanam li na dàng nag ne fàng ci kanam sénégalais yi mooy ay tooxi doona labaj sàcc xaalis ay milliards askan wi te ngonk yi jiite réew mi ñoo koy def yow seetal sika poste finance IPRES trésor saar ay scandale tooxi doona sàcc ay milliards rek nga fay dégg enquête yéen a kaay moo ñu ko xamal jëwriñ ji ñu dénk kopparu réew mi nag weddi na ba tëdd ca naaj wa xibaar yi ñu fi génnee naan DG bu trésor ak bu duwaan fañ leen a kajji dàq nee na loolu amu de Moubarak Lo ci kaay bi xam-xam màcc ci wàllu koom ne hëy fa ñoo war a waxante dëgg Macky Sall fa war a teg ay daan yu saf sàpp yu métti lool képp koo xam ne dégg na la ci mbiru détournement sàcc ay milliards ak koo mën a doon nag critique yéene kaay mel ni ku naan ka tàngaa noppal sa bopp fii ñaata ponkal ci réew mi la fi OFNAC épinglé ci ay tooxi doona looxar ak labaj dossier yi fan la mujj fañ caa teg seen conc ya yii ña ca procureur yee kañ xamul fuñ ñu war a pare delloo ko askan wi est-ce que Macky Sall moom faala na leen wala loolu itteel na ko si du quotidien mel ni ku ko yaakaaruma ko nag faa foog na Macky daal li askan wi xaar ci moom ak réalisation yi mu def ci réew mi diggante bi fa soree lool comme yàlla ak de yaw seetal jafe-jafe yorin wu sell moom lañ nemmeeku askan wi di yuuxu société civile bi di yuuxu Macky mel ni ku tëx faalewul leen sax leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na port bu ndaayaan teg nañu xeer wu njëkk a Sénégal fa roy bët moo tax Macky di tabax ak defar lu rëy rek ci réew mi Dakar Times na ko maa la ko wax de port bu ndaayaan boobu nag moo nar a nekk investissement bi gën rëy bu dippi wóor def Afrique maanaam naar ya les si ko yéene kaay na ko bul yem foofu moo nar a nekk investissement bi gën a rëy ci histoire Sénégal démb lañ ko lancé Sénégal nag lam moom ca poor ba maanaam action yam ca am 40 pour cent la ñeenti téeméer ak fukk ci ay milliards moom la ñuy def ci pàcc bu njëkk bi pooru ndaayaan boobu nag moo nar a gën a rëy gën a yaatu gën a ponkal ëpp ñeenti yoon port bu ndakaaru ñaar fukki junney liggéeykat 100 Touba moo ca nar a xam loolu kay lu baax la bés bi yéene kaay na ko ñetti junney milliards lañ fa nar a dugal pour ci liggéeyu port bi léegi si ko yéene kaay na ko faala ci yokkal yaatuwaay ba junne ñaar téeméeru hectare la ñeenti téeméer ak fukk ci ay milliards ci ñeenti at ña nga xam ne nag fa ñoo loru ci pooru ndaayaan bi njiit réew Macky Sall nee na leen faay dalal seen xel yen ñëpp fañ leen di ndàmpaay jox leen xaalis balaa weeru février info yéene kaay n man daal faa foog na Macky nekkee fan yii inauguré teg xeer ak yëpp ci campagne la nekk élection gox goxaat yi fay jàppale gaayam yi de ndax fay dàq ganaar fa xett boobaale may leer la leer ba mel ni jant tusubaar mooy ne douane bu Sénégal defati nañ jaloore atum 2021 bi junney milliards ak téeméer fukk ak juróom-ñaar moom lañ dugal ci kafaka bu Sénégal maanaam moom lañ am ci ay recette te mooy yéene kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom wen katréer yéene kaay mooy tabb giñ tabb ambassadeur bu bees te Macky Sall fi ay weer yu néew fay dem jiite ji mbootaayu Afrique ya yéene kaay bi di laaj ci na waaye yéen est def nii ko fa am tey ci ngoon mooy njiitere Macky Sall fa nar a dalal gaynde yi ca pale ba jox leen drapeau ngir ñu dem football ji ca coupe d'Afrique ba record yéene kaay na tey ci guddi ci la dem Cameroun Ismaïla Sarr nag ñëw na enquête yéene kaay nañu voilà gis ngeen coupe d'Afrique boobu Sénéra Babacar Diagne ña artu télé yi nga xam ne fa ñoo bëgg a wane coupe d'Afrique bi ci anam goo xam ne jaarut yoon maanaam xam nga RTS lañ wax ne moo am sañ bi keneen ku ko fi génnee wi dal sa kaw man ma dal ci l'observateur fekk fa xale lu góor allah yëf yaa nga amee sa banlieue bu ndakaaru ba tey l'observateur di ñu xamal na ab xale bu jigéen bu ñu wax Aïcha Ly fa réeroon fan yi yëpp ñu ngi koy seet mujj nañ koo gis nag ci réewum Côte d'Ivoire ba tax ay mbokkam waaru lan moo ko fa yóbbu moom nee na xamut fu mu jaar ci kaw asamaan si wala ci suuf moom daal ma nga Côte d'Ivoire te nañ dem jëli ko si jamono ji nga xam ne ay mbokkam ña ngi ko doon jàngal kaamil ci la wooye yaayam téléphone wax ko ko yéene kaay bi na askan wa nag seen xel na ci yëf de xam na lu ca lëndëm de la leer nañ ñi nag di hab tooxi doonu musiba naaru laay bu xam ca quai bu yoof yow e seet gàttal benn waay bu ñuy wax Serigne Ousmane Diop moo jàpp ab xaritam bu ñu wax Falilou Fall daal di koy rendi ba mu faatu ñàkk bakkanam allah xam nga lan moo leen boole ñeenti junne ci leen doon xuloo ak benn téléphone bu ñu sàcc libération ne ki ñu wax ne nag moo rey bañ ko tegee loxo fekk nañ ca moom fukki kornetu yàmbaa te moom moomu yàgg naa def ay tuuxi doona de ndax atum 2020 bii tëjoon nañ ko kaso ndax fa agressé woon waa ma ne léegi ñu bàyyi ko mu génn rey Falilou Fall baax na léegi bu ngeen ko tëjaatee ngeen bàyyiwaat ko rek nawoon mu defaat li feebar wax naa ko ba sonn gis ngeen ray gu bëri gii Sénégal xamut benn saafara lu may ku ray nit ci maa tey rek ñu ray la dootoo rayee ndax dee nga te ku ko dégg dootoo ray gis nga fii ñëpp bëgg a dund waaye su ma rayee presque du mujj fenn fañ may tëj bàyyi ma fa ngay ray rek xàtte yàlla moo gën a maandu te yàlla loolu la xàtte